Europe ñoom ko jëndal ministre bi ministre de la jeunesse moom ko jëndal mhm. ma ñëw Sénégal ñëw Sénégal nekk ak ñoom di leen dimbali ak booy yi damaa dem ba si biir problème bi yëpp tey jii du ma ne ñoom ñoo ma ko teg damay jàpp ne yàlla. Mhm. waaye ci ñoom la jaar waaw suñu seen loxo la jaar. Mhm. ñoom ñoom ma indi Sénégal man dama waroon dugg dama waroon dugg INSEPS. ma ñibbisi ñoom ñoom ma jëndal biir ma ñibbisi pour dimbali leen. pour dimbali leen. mais dimbali politiquement dimbali voilà dimbali bu mu leen dimbali nag. moo lay jëkkër rek. mais lan nga ci jàngatee muy benn point boo xam ne nii rek am na xale bu nekk Ndakaaru mu ngi téye téléphone am di seetaan Ada Fass ban message nga ko ciy lancé bu toll ci jamonoom am na fit am na doole ñeme na lool te tey jii mën naa def lu bon wala mën na koo ñàkk ma ñu def wala ëllëg mën naa dugg ci tuuxi doon na lan la ko Ada Fass di wax ci àddunaam mu xam fan la jëm. waaw tey jii amaana am na lu bon jëmul jëm ko Euh, sampul kër baaxul waaw lu bon amul njëriñ. Mhm. li ma wax booy chaque jour gis tey ji def ko tu ñaawteef bu tabax dara mënul nekk. Mhm. kon boog liggéey moo la mën a may lépp si àdduna. boo liggéeyul doo am dara. li ma wax booy man boo xëyee di jàppeel sax xëyal jàppeel suñu boroom dina la jox ñi am doole sama moroom yëpp laay wax képp kuy sama morom nekk si dëkk bi liggéeyal. waaw man samay rakk dañoo jam si Nicaragua bi jaayante ko ba dugg biir États-Unis pour liggéey waaw. kon boog ndaw yi instant yi jug nañ pour liggéey. ba saa woo bëree ba pare bu may ñibbi waaw lu wér. <laughs> bëggoon na ko génne lu wér ci xam nga eh, am na ah. ah bu ah, Abdou Kaye am na maire ñu mag buur tuuti. déedéet xaaral ma ñëw ah Ndakaaru léegi kenn moomatu ko de. waa léegi waa ah, loolu de. wax ñëpp naan borom Ndakaaru. ah borom Ndakaaru ku ci ne ba nga génne. ah da ah. ngaa daan. mbay moom borom Ndakaaru dong. moo génne am ndam mbay Ndakaaru kenn doo Ndakaaru. Ndakaaru eh eh eh. mbay bu nee na Ndakaaru Bébé Diène nee na moom Dakar moom sànni njëriñ. dama ni waaw Bébé Diène nee na moom Dakar moom sànni njëriñ. mbéy guy daa daan mbéy guy daa daan mbéy guy daa daan. on ne peut pas être mooy borom Dakar. sappaale Fatou Seye bëgg nga ñëw bëgg nga jaay. déet déet on ne peut pas être plus plus royal. et bon non plus le roi. waaw mbay googu dëkk fi bool bool <laughs> ah mbay googu nee na bàyyi kenn moom jën kayre mbay googu nee na kenn ah, <laughs> daan ko eh. Eh. bébé jën génn ñu daan ko am ah, da nga bëggoon aada nag fi mu daan du ah déet eh. ah. moom Dakar bu kese nag déglu fi jël job Sangomar waaw waaw jeex na père xam nga Jat Diop Sangomar. <laughs> waaw xam na Jat ah, Diop Sangomar mais yaakaar nga ni yàgg jën kay rek ba euh, bébé nu mu tudd. bébé jën bébé jën. rivalité boobu. non rivalité amul ñun ay frère lañ. ak coow la amaana coow de coow amul. ah dañuy wax de aadama bu ñu waxoon Fadam coow. coow maa gis ma coow. mais dégg nañ am na supporter bébé. mais waxuma non loolu amul gars yi tamit bruit la <coughs> bruit. mais tamit lépp Ndakaar lépp benn la tey jii amaana tey jii lu may wax rek man bu ma yéenee sama morom lu euh, safaan yàlla naa si jiitu. balaa ñu ne Papa ñëw ànd ah, dama ñu am benn ñu gis Modou Lo ñoom gars yëpp ay franc yu contact ndax lu tax tey jii yéen booy Ndakaar yooyu tey jii combat am Pikine Fass wala Bébé Diène am combat wala Ada Fass am combat ñu gis ne ñëpp nga nekk benn borok di liggéey. te teewul ku nekk am nga écrit ndax loolu mën nañ koo séntu lu leer lu leer loolu mën nañ koo séntu mais amaana man damaa nekk nit koo xam ne tamit damaa duggul si ñëpp man maa mel noonu si boppam nag waaw damaa mel noonu saa làmb man bëri ma ay dugg-dugg man sama rëkku laa nekk waaw mais bëgg nga bëgg ngeen a booloo nekk benn yéen ñëpp waaw mun nañ booloo nekk benn mais maa ngi sama rokk maa ngi sama rokk rek <laughs> sama daan <laughs> ah, lay doon kay naka de ku nekk ku nekk mun nga fa jëlee xam-xam waaw ah, mais sama rokk la ba mu nekk sama rokk rek mais yaa ngi seetaan ak ñoom ku mel ni bébé jéen dina xew la ah, dara nga dem wala jéen kër nga dem waaye lañ moom presse moom presse moog ba ma ñoon maa ngi fa woon maa ngi fa woon open presse bébé jéen da ngeen déggante téléphone dañuy déggante open presse bébé jéen ñëw na ba bébé jéen boobu est-ce que fekk boobu open presse wul point de presse la def xaw ma waaw waaw boobu mais da ngeen di demlante seen open de presse. waaw ma ko kon kii baa ma ñoon ñëw naa. ku ci gisee sa da ngay da nga waaw nekk si jàmm waaw mm, waaw. mais seen supporters yi ñoom mooy borom Dakar diw mooy borom. Dakar alpha daa may lii moom alpha am na jàmm ñëpp jàmm ndaxte dañoo fekk suñu ay mag ñu sekk jàmm. Mhm. kon ñun suñuy rakk ñun rakk yi bu ñu ñëwee dañu war a sekk jàmm ndax suñu rakk tamit dañuy ñëw. Mhm. bàyyi jéem déedéet lépp jàmm la. au delà au delà des lutteurs mhm. que Ada fas dina pare combat dem seeti Boy Kayre wala mu dem seeti tafaa Tafa waa waaw Pape Kayre dañ koy seeti maa ngi koy nuyu au passage di nuyu tamit suñu Pape Moustapha Gueye bu baax a baax waaw maa ngi nuy bu baax ndaxte tamit garas a ah, ñoom si boppam. loo tax ñun ñu bëgg a làmb. Mhm. waaw di leen sant di leen gërëm. dina suñu maam maam góor gi ñëw yàlla na suuf ay si kawam. est-ce que yaatal nga leen. maam Mbaye Gueye bu baax mu Moustapha Gueye bu baax bu baax ci préparation est-ce que di nga déglu Moustapha bu baax Moustapha dina ñëw. Mhm. fekk nga teg nga takk euh, ngemb. Mhm. wala booy karee ñëw fekk nga takk ngemb di takk suuf. mu jàpp ci. waaw est loolu dina am. amagul amagul amagul amagul. ndax dégg naa sax doomu doomu Moustapha Guèye da koy forcer papaam. kon des na ma jot naa information doomu Moustapha Guèye. kon des na day forcer ñoo fa woon man a doomu Moustapha Guèye boobu ñoo fa woon moo ngi oh. Fran moo ngi Lyon. mu ngi Lyon ñoo fa na waaw. moom day jàpp ci day bëgg sa papaam di ñëw ci. waaw moom day ñëw am nga question ki ne ah. euh, mhm. ah, ñëwal ci ne Baba bisimilah. Euh, Moussa moo posé question à l'instant nee na est-ce que moom Bébé Diène ak Diène Kaïré ñu ngi dox ñu ngi dox ay tànk entre ak seen man dama si man dama siy xaru man loolu man mi si boppam dama siy xaru mais lan mooy problème bi làmb pour làmb moo tax problème nar a am non jàmm rek ndaxte réew jàmm moo ko yor tamit. Mhm. suñu mënuñu noonu te ñuy romante mënu nekk benn tali moo ñu séparé face maintenant benn la kon amaana dara xaju fi per per ah, papa kay ah, de papam. Igri Fass la nekkoon. waaw kon Fass ak Medina benn la. am nga beneen Gris Bordeaux buy bëre waa Fass yëpp ay jug. Mhm. supporté ko kon Fass ak Medina benn la. en su kati jugee. Mhm. booy Kayre jóg. dafa mhm. ngay jóg normalement. ñëw renforcer sa sa sa cadre technique. mën nga am dara benn question tamit dama ko ñu laaj ndax Ada Fass mën naa am combat bëgg esprit de partenaire dem Igri Fass contact fa. écurie Fass man ba may nekk booy laa fa nekkoon écurie Fass laa doon nekk di entraîner mais instant yi moom mais ndax tey jii combat bi nga am gis ne Fass am na ku mel ni Serigne Ndiaye numéro 2. Hmm. am na ku mel ni Lac Rose am na ko mel ni Gris 2 nga soxla esprit de partenaire. non man Fass man non man sama bopp man sama ruq rek. daa bu nekk sama ruq rek. <laughs> ah mais daal bàyyi baal sama ruq rek. waxal say supporters lu ñu mën a dégg wax ak lu làmb lu ñu mën a dégg sa combat ak Zarko combat déclenchement la ci combat boobu. Mhm. combat bii tamit combat déclenchement la ci yow sa diggante guy gi. incha allah ban aada fas lañ mën a xaar comme ni ma la déggee sànq nga ne da nga bëgg a doon roi da nga bëgg a grand champion ban aada fas lañ mën a xaar. pour mu yegg foofu pour mu yegg fa ci entraînement wak ci lépp. baal baal damaa soo yore nii toog rek tey yow ma ko da ngay dem maa ngi si bu baax combat yi man maa ko jëlee sama bopp en mai. kon lañuy ñuy wax combat bi mooy sama final final la. boo boo teg jeexal kon yow teg jeexal. boo takkee damaa teg damaa teg romb jeexal. te balaa ñu xam arbitre bi ah, teg jeexal ci guy bi. bu bu loxee daan. teg jeexal ci ma ne balaa nga koy xam la set arbitre bi sifflé. moo freiné na ama neex. la set arbitre bi sifflé est-ce mi ko daan. <laughs> non mais le 7 juillet le 7 juillet incha allah bu arbitre bi sifflé la ñu xam kuy aar non Ada Fass léegi. Ada Fass Ada Fass daa màgg man damaa màgg si laa ma damaa dem bay toog di di fan sax sama bopp ndax xam ki ma doon si géew waaw ndax damaa xam lu may posé si géew waaw man mu amoon problème jeune amoon problème sëñ bi xale bu ndaw laa. comme problème jeune. non wax ma wax ma loolu. ah bu ñu déggee wala dama. wala ci leer. ah formation faite ah. ah dafa am problème jeune bi. muy soox. non non soox amul. mais ay xale lañ daal te incha allah rabi ñu ngi si sport bu baax a baax a baax. kon moom problème jeune ak ko problème jeune bi. non waxuma daa am problème jeune wala problème jeune mais ñun amuñu ko. Ah, macha allah boo ko amul kon guy mais ñun. ay sportif complet lañ daal ay sportif complet lañ macha allah non loolu dama ay sportif complet lañ macha allah ah Fatma Dia daf fay yóbbante benn laaj. mu ne lan Fatma Dia saytaane. waaw lu mu wax. nee na lan moo tax 1000 pour cent bi am diggante Medina ak Fass nee na mbir yëpp bokk sauf Ada Fass quel est problème. kon li lay wax ñoom 1000 lañ def. 1000 lañ amul. waaw loolu dafa fekk ne kon lu kii wax rek man damaa nekk xale nekk sama yoon. da nga wóoluwul sax. da nga jiboowul ak ñoom. seen jikko moo la neexul. mais kaay la ñu ànd moom defe naa dara dàq ko. daa li ma bëgg rek te ceeli bu gisee li ma bëgg da ko bëgg a jëli këf ko. loolu nga bëgg boo ànd ak ñoom doo ko am. du loolu de daa am li ma bëgg këf rek daa am bëgg a këf rek loolu moom ma duggal si làmb du leneen. est-ce da nga bëri yow ak ñoom. Eh, tamit <laughs> tamit làmb la rek. làmb <laughs> la rek kon événement làmb la rek. Ah? Eh. Ah, <laughs> la rek mais Ndakaaru benn tali benn en ah, benn Fass benn tali moo ko séparé. mais loolu nekk la quand diggante ak Ndakaar moom ron gëm mën nañ bëri suñu biir. ndaxte dafa dafa dafa xat dafa tuuti. te tamit suñu yaayee ngi fa suñu papa ngi fa suñu ay rakk ngi fa. te lu ñaaw bëgguñu muy am. am. Euh, Bouba mooy posé question aada nee na ñoom dañ leen di wax aada Fass mburu ndak dañ koy ne mburu ndakaaru mais est-ce que am na drapeau mbapat. drapeau mbapat ah drapeau nga mbapat. kay. ah day damay jël tournant bañ ne ma bul ñëwaat si dëkk bi bul ñëwaat si àll bul ñëwaat fii boog. ku fay dëgër foofu di dugg man dama dem ba Casamance di mboppat kay. ñu ne aussi ndax sa plan de carrière boole nga ci ay ñoom Reug Reug. fuñ jëm. Mhm. duñ ko wax jaruñu koy wax. fuñ jëm ñoo ko gën a xam xam nañ lu fa nekk. te mhm. sacrifice bu mu laaj lépp incha allah rabbi. <laughs> yàlla baax na relation sama Balla tey jii sama papa la sama grand la. digub laa jaar sa sama grand la sama grand la rek comme comme lu rafet. lu rafet nit moom xam na lu rafet mooy lépp te daf ma waxaa ah, ji ma ji ko ko. lan lu rafet. comme woo di ma conseiller. te ku la ku lay conseiller si àdduna kooku amoo fayam. fan la conseil mooy lépp na ma lu bëri. fan fan la la njëkk a woowee conseil wala amoon na problème bu xew mu woo ma problème problème kon genre ndakaaru rek waaw ndakaaru yi la njëkk wax lan la wax. nee ma waaw rek si diggante mag ak rakk. waaw lan diggante conseiller ma xelal ma. doole ma yan baat la wax yow jàpp ba léegi. waaw ah, baat yu ma wax yu ma jàpp ba léegi mooy comme ma xam may ku ma ku ma doon quoi. maa xam maay kan waaw. pourtant souvent ku la wax rek dana tax loolu loolu bëgg a laaj pourquoi aada ku wax ak yow rek ne la ay aada xamal quatre-vingt-dix eh, ji ko. <laughs> cent lii mu mel nii. lii man yaakaar ma aada fas li lii ci plateau bi tey <laughs> lii aat da ko daj ci peke tegal bi. nga ni ma. jegewul lii aat bi kay jegewul. kii du aada faas. la ah, kii ah, ah. non non. ah lii benn affaire bu mu coof rek teg nii. <laughs> koor gee tax mu imposé ñu ko indil ñu Baay Faal gi nii. tegal ñu ko ñor dañu tuuti l'islam. mais attends Babacar Babacar. ah non aada yaa ngi ci biir géew boo amee.